seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement waadi Xaadimu Rasuul ginnaaw bi Touba ca kanam jotee ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ci ñu jëmbat ay garab ci dëkk bu sell bii di Touba Touba ca kanam lancé opération naatal Touba ci njiitul commission environnement bu Touba ca kanam commission bi waxtaan ci ak jëwriñ ji nga xam ne mooy ministre de l'environnement ngir leeral ko programme bi nga xam ne moom la tëral ngir fas yéene lii nga xam ne sëñ bi bëgg na ko ci dëkk bi ñu mën ko réussir ginnaaw waxtaan wi nag délégation bu ministre bi ki nga xam ne moo jiite eaux et forêts bu région de Diourbel ñëw Touba seet si waa Touba ci kanam fii ci seen pépinière bi nga xam ne fi la ñuy waajalee mbooleem garab yi nga xam ne moom lañ bëgg dugal ci biir campagne de reboisement édition 2024 ñu visité ko xool garab yi saytu ko waxtaan ci ak plan d'action bi nga xam ne Touba ci kanam fas yéene koo teg ngir mën a jëmmal li nga xam ne sëñ bi bëgg na ko ci dëkk bi muy naatal tuubaa ñoom ñu am ci mbégte lool am ci kontaante yéemu ci lool ci doxin wi nga xam ne Touba ci kanam mu ngi koy dox ngir fas yéene tuubaa naat ci wàllu garab dans le cadre des tournées yu ñuy def kom ñun balaa hivernage bi jot dañuy wër saytu pépinière yi nga xam ne moo ne si diwaan bi ñu dénk si kaw loolu lañ yët si fii si pépinière Touba sa kanam nekk fii quartier bu ñuy wax Sam si Touba en tout cas bu rëy a rëy si lu ñu fi gis si lu ñu fi gis si xeetu garab yu bari yi si lu ñu fi gis si ni ñu nammee bu ñuy joxe garab muy garab yu mag te loolu dafa doon jafe-jafe si ñun garab bu ñetti weer nga jox ko nit ki mu war ko toppatoo ñetti at pour mën ko jëriñu ñun ñu xam ne li gën mooy garab bi même bu ñu koy téye si pépinière bi ñaari at mu doon garab bu mag xam ne boo ko joxee askan wi daanaka si benn at lañ koy toppatoo mu doon garab loolu lu ñu naw la si lu ñu fi gis leneen lu ñu fi gis ñu naw mooy recyclage de maanaam bouteille plastique yi nga xam ne dañ koy jël di ko si def pépinière parce que ñun ñooy ministère de l'environnement di xeex pollution surtout pollution plastique ku jënd sa guutu ndox xëy na boo paree mun nga ko jël di ko utiliser mu doon beneen jumtuwaay mais bu demee ba na nag def naa amatoo si soxla mbalit rek la jëm au lieu muy doon mbalit di polluer dëkk bi yéen ngeen jël ko recycler ko defaat ko fii ñu siy defaat ay garab foofu aussi muy lu ñu nawlu lu ñu rafetlu si la ñu gis fii donc am mbégte bu baax a baax si lu ñu fi gis ni ñu toppatoo garab yi muy garabu kër yi si lépp jublu leen si lu dul vertal Touba maanaam mu doon une ville verte loolu nag taxawaayu service eaux et la donc fii mun a yéen dafa man ni da ngeen taxaw di jàppale service eaux et parce que ñun la nguur gi dénk jëmbët si biir dëkk bi xam naa jot nañ si waxtaan ak seen kii kii jiite seen commission environnement muy si Fallou Ndiaye amoon na réunion bu ndaw buñ ci def ba am na ay mbébét yu ñu yu ñu jox pour ñu gën a fuul pépinière yi parce que seen mbébét mooy centre bu ne ñu def fa pépinière maanaam mu tas si biir Touba. parce que loolu dafa am solo non seulement il garab yi ne mais garab yi jege askan wi. Mm. xam ne du ñu def distance pour dem jëli ji garab yi li des nag mooy xëy na bu fa tolloo en tout cas kooku moom njël lañ koy bàyyil parce que li ngeen si man a seen kàddu fu mu si mën a yegg pour nit ñi def ko seen biir taxaw samp ut garab samp ko toppatoo ko mm. kooku moom def naa ne en tout cas doy ngeen ñu si. waaw en tout cas li ñu namma si Touba ak li ñu namma si Sénégal yëpp muy un Sénégal vert ñu mën ko si am. ñun ñooy réitérer notre confiance. yaa parce que man ñu ci bari samay collaborateurs. monsieur Ndiaye nag on le remercie beaucoup. muy Fallou ndax <clears throat> bi mu ñëwee gis nga innovation bi def. Hmm. dafa daal di def programme bi ñuy wax pépinière villageoise nit ñi pépinière villageoise. Hmm. pour tas ko. Hmm. loolu xam-xam. bon il faut ma ma ma euh, wax tuuti. ci ci ci li mu occupé xam nga Touba ci kanam c'est une organisation tey mën une organisation internationale mais moom moo ko moo ko inva moo ko moo ko xalaat génn ko dox ci tuuti ñëpp adhéré ba mu nekk au niveau mondial moom c'est le fondateur de Touba ci kanam loolu xel ak xalaat la mais li ma jàngate foofu Sëñ Touba dafa ne woon lépp loo xam ne yëngal naa ko sunu borom dana ko barkeel ak ak luñ ma yëngalal. moo nag noo dëgg laay wax da ngaa yëngal li sëñ loolu moo li sëñ Tuubaa lii ko firndeel ndax yaa toogoon sa néeg xalaat Tuubaa ci kanam kenn fekkulu mm-hmm. nga de ko doxal ba yàgg ñëpp adhéré ba mu wër addina bi kon li sëñ Tuubaa waxoon mooy loolu mooy yàlla da koo barke mm-hmm. kon noo ngi ciy sant bu baax di ñaan ak ki mu ànd muy mm, Cheikh Kane le vice président dafa am empêchement dafa waroon a ñëw mm-hmm. moom it tey lépp loo xam ne soxla nañ ko ci pépinière bi moo koy dox ci ndigalal sëñ Fallou Ndiaye kon ñu ngi ñaan rek sunu borom jàppale ñun ñëpp Wow. Nous prions Dieu de nous unir de ses propres liens. Amen. Quant à l'accomplissement de notre métier de œuvre, œuvrons pour une cause commune. Je ginnaaw visite bi ak waxtaan wi ñoo ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñooy waa eaux fore te ñëwoon fi doon seet si liggéey bi waaye nag ñu ngi tàllal loxo mbooleem murid yi mbooleem jullit yi mbooleem population sénégalaise bi ci ñu ñëw ànd ak Touba ca kanam ci projet naatal Touba ndax tuubaa ku ne xam na ne soxla na ay garab kon nag murid yi képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu garab Touba ca kanam mu ngi lay tàllal loxo ku am garab indil ku am xam-xamu garab indil képp ku am jumtukaay boo xam ne li sëñ Muntaxa bëgg ci Touba naat am nga ko indil ñu ngi tàllal ñëpp loxo di ñaan sunu borom li sëñ Touba ñaan ci dëkk bii di Touba Touba ca kanam bokk ci ñi nga xam ne danañ ko jëmmal te nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul هذا أم أمان